te plus con que Madiambal Diagne amul quoi ah yow tey jii sa méthode ba nga jëloon ay Adji saar ah jaaroon na fi nga ne da koy indiwaat pour lan mayu la dara ba muy ba muy saf ba muy safee mayu la dara kon waxuma laa ba ak sénégalais yi fàttee quoi yéen am seen sénégalais yi nee na leen waxuma la Adji Sarr ak Demba kii Sarr ñun la ñuy votel yow nga ni indiwaat quoi saa waay changeal méthode waaye looy mel ni mbër moom benn clé plaque kese looy mel ni tafaatin ma jambal indi leen yeneen argument tu vois indi ngeen Adji saar indi Mame Mbaye Mame Mbaye ñaa dem nga tubaa fen fa naan kii day tere màggal terewul gars yi ñu lañ jox bopp donc nga xam ne seen yooyu noonu mayu leen say pour ngeen opposé wu ak Sonko bi nii il faut ngeen indi affaire bu consistant mais doona fi nekk ci ay saagak ah naan ay saagak tubee bu mu sol guddul ak yooyu c'est que vous devenez ridicule à la longue indi leen opposition bu indi leen lu coriace indi leen plat bu consistant moo gën seen entrain ngeen indi

ak ak ban but APR tas na Amadou Ba moo fi nekk lapin flingueur bu dul xaalis kenn xamu ko sénégalais yi bëgguñu ko ah ngeen ngeen ñëw fii pour roube on va rendre ce pays ingouvernable avec la complicité des des des les absents les plus présents absent nañ ci kaw ni mais si suuf ngeen di di rongodongoti doo leen si jëlee ndam sénégalais yi dofuñu now we see the light li waxoon gis nañu leeraay bi dootu jàmmatuñu xërëm xam nañ ne benn yàlla am bu dee fi nekk ni ngeen daan ndaxee Sénégal yi teg seen yàllug bant yooyu ay pomme nii ñaan ay ñun xutba nañu ba xam ne benn yàlla moo am teg si moom la ñuy dee donc mun nañu delloo ci yéefar gi ñun tuub nañ saay nangu leen ndogal Sonko rek nu mel bëgg nañ ñëw si plateau même doon duru fay boobu noonu ñu perte ñu xam ne ay problème impôt